walal ma Macky Sall kii day na président Bazoum Macky Sall mi am na président may damay nuyu sama xarit sama sëriñ sama frère Cheikh Adam Niang bu ma jógee ngi nuyu imam ak délégation bi mu imam Dieng moo dirigé maa ngi nuyu aussi délégation bu ministre ngeen yóbbal ma ko nuyoo bu baax maa ngi koy nuyu maa ngi si ginnaaw mbokk yi comme noonu ko xamee ñun politique de développement nañu def dañu ñëw di jàppale son excellence le président Macky Sall président Macky Sall ñëpp xam nañu mu ngi liggéey waxam bëriwul toujours li may wax président rek mooy muy tottante ñun aussi yàgg naa toujours di ko wax mooy ñun acte yu ñuy def mooy suñu avocat mooy lan mooy action yu ñuy def ni ngi ci formation bi xam naa jigéen ñu instant duñ ma bàyyi ma fenn keroog rek dafa ne leen ci ay formation donc ñun comme ni ko sëñ bi waxee rek ñiit ku la dig ndekki dig la añ bu la diggee reer di bu gëm ñun fu ñu toll nii yamuñu ci formation bi li ngi ci éducation bi li ngi ci sant bi récemment rek offrir nañ ci prix de 304 mutuelles de santé yi si askan gi série bi kan moo fi indi c'est le président Macky Sall moo fi indi yomal na santé bi lol lol comme nuko ko sama naatango bi waxee sànq président, du ministre président Thiès regorge beaucoup de potentialité AIBD ba ngi fi phosphate ba ngi fi ay yeneen yeneen université Thiès ngi fi ISEC ba ngi fi nga xam ne président ay centaine de milliards la fa def ñun en tout cas ay ndawam la ñu dañu ñëw jàppale son excellence le président Macky Sall li may ñaan rek mooy mooy keroog bi ma le président lim ko wax mooy na bàyyi xel ga AIBD bi eh, kii doomu Thiès la il faut que Thiès waa gis seen bopp Thiès Thiès toll nañu ba instant bu xam ne xale yaa ngi nii dañu jàng ba pare seen dig du chômage c'est inadmissible président nag mu ngi def effort yu mag si wàllu chômage si wàllu si wàllu emploi bi en tout cas mon frère li ma leen di ñaan mooy mag ak ndaw bu leen découragé président xelam yëpp mu ngi Thiès comme ni ko saa yi waxee sànq Thiès depuis des années opposition boo koy jël li moo président mooy lan mooy bi yoon jeex na tàkk Thiès dina dugg si loxam waaw ñun de dinañu def lu nekk di jappalé wax ak ndaw yi fu nek dinañ fu duggu pour président am au premier tour en 2019 parce que bu dara président mu ngi liggéey PSE baa fi ñepp tek nañ ci beut on a un président xamné qui parle peu qui agit c'est un technicien comme nous limay faral di wax en tout cas li leen di ñaan mbokk yi ñun dinañ continuer di former les jeunes ubbi nañu benn formation xamné day comme ni ko sama le président des jeunes waxé de leadership dinañ ko demande si mois de mars dinañu fexe xam ne armée xale yi nga xam ne ëllëg fu ñu taxooree dinañu jëriñu seen réew ñun de Thiès moo ñu ñor moo tax développement nañu def def ñu politique bu xam ne politique politicienne duñ ne politique bu xam ne maanaam bu élection jeexee rek dañu jël dañu toj suñu portable wala dañu tukki dem bitim réew bàyyi ci Thiès ñun dañu bëgg a jege la population thiessoise di nekk ak yéen guddi bëccëg loolu moo tax di jël suñu siège indi ko biir jaxaaw dëkkandoo ak ñit li may wax nag mouvement ànd soxla Thiès mouvement politique la mouvement de développement la li may faral di wax rek mooy mouvement bi yamu si Thiès Nord mouvement bi mu ngi si biir commune bi yëpp même biir même biir Dakar sax nit ñi woo woo ni que dañu bugg a ay cellules si mouvement bi pour wax leen rek ñun. ñun duñu diggaate duñu wax luñ deful. li ñuy fi ñu président yamuloo foofu na ñuy yem si loolu moo kii li ma leen di ñaan rek mooy jeunes yi na ngeen góorgóorlu ren ñi nga xam ne amuñu carte d'identité nañu uti seen carte d'identité uti seen carte électeur waaw loolu laal ni di ñaan nga xam ne président ni jox ko ndoom au premier tour loolu laa leen di ñaan incha allah dinañu continuer formation bi formation bi xam ne def nañ ko si wàllu famille si wàllu savon bi audiovisuel bi am na yeneen formation yoo xam ne dinañ ko tàmbaliwaat si fan yi bu ñuy paree foofu aussi mutuelle de santé bi incha allah waxoon naa keroog suñu aadama bu ñu paree incha la le nord dinañu ñëw fii xam ne instant jàppale yi xam ne jigéen ñi jàppale borom kër gi si wàllu mutuelle de santé bi. beneen bi mooy formation bi ñu waaj def formation bi ni nga ko waaj tàmbali mooy formation sérigraphe formation bo xamné képp xam métier même si amul métier la nga xam nga parce que nit bu nga koy may koy en tout cas politique politique vraiment pour concrétiser expulser jappalé son excellence le président Macky Sall si dëgg vraiment mbokk yi lu mu di di di que vraiment di ñu ngi seen ginnaaw tey ñu ngi seen ginnaaw sow jërë ngeen jëf wasalaam instant si kanam jërë jëf Macky Sall au premier tour di sant Habib Niang di ko gërëm di ko xamal ne kontaan na ci moom te lépp li nga xamante ne si diggante woon na ko ak moom mu ngi koy def mu koy rafetlu bu baax di leen wax ne Habib Niang nekk na nit koo xamante ne ci ku engagé la nit koo xamante ne ci moo baax ci gàmmu yi moo baax ci jàkka yi moo baax ci jumaa yi ah moo baax ci développement nit koo xamante ne si développement rek ci lay dox loolu moom moo tax ñu war koo jàppale xam ne ku ko jàppale dina la jàppale parce que ku la jox ndékki jox la añ ne bu ree dina la jox reer xamal ne dina la jox ren dama ko leen àndal koo leen àndal koo leen àndal koo leen àndal Habib Niang ak mouvement ànd suxali Thiès dinañ ànd moom di ànd moom di mars ñu fal président Macky ca palais ba incha allah. xeej bi gën a gis mayor ko xeej bi lii xeej la xeej. gëj ngeen a gis ma yor ko nee nan boo duggee ci bitig la fay jaay dañ koy bu fekkee ni ab may gala dañ fay bind mburu bind fa kaasu kafe bu dee oromage yi ñu desin ko fa waaye ku xol sama buntu kër gii gis lii ma fi def lii moo nekk ci biir waw ñi ko xam mom xam nañ ko ñima ñam ñima ñam ñima ñam xam nañu lolu sama xeej bi fuma ko yabal mu dem abib fuma ko yabal mu dem ma ngi nuyu délégation ministre l'une salle ma ngi leni dalal jamm Karim jërëjëf gis nañ seen taxawaay lépp rafet na ndax ñu bokk teen rek ñooy laxasoo ay goj kon jërë ngeen jëf teewaay bi rafetlu nañ ko lool jërë ngeen jëf Cheikh Sidaati Mbaye jërëjëf yow sama lépp nga ni nga ko waxee léegi rek yow xam nga man xam naa yoruma ay bant yoruma ay bant dessiné ma ay gaynde rek déedéet waaw fu wér laa ko teg ku ko bëgg a ñam nag noo ko bëgg a maa ngi nii noo ko bëgg a ñamee rek noo ko bëgg ñame ñamee waaw man dama leen a waxoon ni leen man naa ci duma politique man mom la len waxoon man ñima andal Serigne Touba tax ñu and ak man Habib bi mu ñewé ñu waxtaan muy nit ku baax mané ko man day talibé yi rek la am ndax ab cheikh la waaye boo dimbalee taalibe yi ñoom ci seen ngor lépp loo nekk danañ la ci fekk mu tàmbaleeg ñoom defe naa ne rëccuwu leen ko tey rëccu ko te gisagu leen dara lam ma waxoon lépp def na ko li ma ma digoon lépp def na ko ma ni leen woon duma politique waaye tey laa bëgg kuy dem yóbbaale ni Cheikh Adama Niang day politique politiqueel kan laay politiqueel kan laay politiqueel kan laay politiqueel kon ku ngeen àndal <laughs> Habib maa ngi ñaan ci baxut sunu borom ndax yalla dama bëgg ngeen dégluma dama bëgg ngeen dégluma mané damay ñaan ci katanu suñu borom ndax yalla day dogal ba mu neex ko mu jëfé coobarem yalla day dogal ca àlliwoo ja ni lii lay def ëllëg gaa yi dem ñëw ne ah yàlla nee na lii lay def ba ci yàgg mu jëfe coobareem bàyyi la mu defoon yépp ni maa tey loolu la yàllay def waaye maa ngi ñaan ci mbaaxuk sunu borom ki nga xam ni mooy Macky Sall te ñu koy politigal dama bëgg lii muy yóotu yàlla jotale ko ci ñu koy ñaan sunu borom ñu koy ñaan sunu borom waa premier tour laa bëgg premier tour ñu fop Sénégal tek ci loxo mat kon nak lolu ñu koy ñaan suñu borom Habib di la xamal ni dal ñu ngi ci sa ginnaw pare nañu pour yow muy sayir di batin bur ragal dara borom xej bi nga andal bur ragal dara lépp loo soxla naa ko dégg sama nopp bu ma ko déggee yàlla faj ko jërë jëf wasalaam moom mi may fit ba ñu am occasion gis ku mel ni monsieur Habib Niang ku engagé wu ndax ñun Thiès mosu ñoo am leader dem damay wax ak sama benn xarit mu naan ma Macky Sall su amoon ñaar ñu mel ni Habib Niang mooy ñu jël ay moyens jàppale monsieur Habib Niang mu liggéeyu Thiès. lii dañuy lancer suñu mouvement lay wax. nekk ci di dox ndox guñ ci dox nag ñu ne ko ñun ay ndaw lan waaw ci li ngeen seeg duñ ci yam dañuy dugg ci biir dëkk bi waxal mbooloo mi ndax Habib Niang Habib Niang waaw kon day mel ni kon monsieur Habib Niang day mel ni foofu la bàyyi kàddu gi rek ndax day mel ni dafa guddi. ñi ñëw nag ànd ak Abdou Rahim topp ci ginnaawam bëgg lu mu am ñu am. bokk kook Habib Niang c'est la première fois tay ma di la gis mu and ak yow ba 2019 ngeen fal Macky Sall parce que ñun bu ñu ñëwee fi c'est pour la réélection de monsieur Macky Sall parce que Macky Sall gis nañu lu mu def fi ci réew mi peut-être ñëpp gisunu ci seen bop mais vraiment ñu ci wara gis seen bop gis nañ ci seen bop ñun nak dañu nekk fi ci koñ bi avant ñi dem troisième étage dañuy ñëw rez-de-chaussée da ngeen ne mouvement and suqali Thiès ñun ñu ne mouvement and suqali Hersent ba pare doog ko suqali Thiès commencé ko fii nag ci suñu koñ yow Habib Niang dañoo dégg yu baax yi ngay def dégg jàppale bi ngay jàppale jigéen ñi ndax ñu suqaliku fii les femmes qui sont là pratiquement la plupart ne dorment pas par manque d'espoir xamatuñu fu ñu jëm parce que tout te yow gis nañu yaa ngi ubbi ay bunt donc ñun ñu ngi sa ginnaaw ba 2019 incha allah. Cheikh Aada nekk fii di def yu baax di defar ay gàmmu di yee nit ñi di ñu wax lu baax di ñu teg ci lu baax kon ñu ànd ak moom. les femmes qui sont là ne dañoo am fii benn mouvement bu ñu créé te dañoo ne feccum liir bu yàggee ndey yaa teye ci mbàggam nit ki di ka may jën bis bu ne jàngal ko nu mu nappee moo gën ndax mu demal boppam tax yow ñu ne la Habib dalal nañ la ak jàmm fii suñu koñ nga ubbil ñu suñu buntu jàppale ñu ndax ñu mën a demal suñu bopp ñu jàppale la. monsieur Habib euh, euh, il e il est il est différent ñun ay politiciens lañ daan gis depuis toujours ay politiciens lañ daan gis mais mosu ñoo gis homme politique. fii ñëpp ñëpp a politique parce que da nga naan politicien dalay dalay nax mais c'est la première fois ñu gis politicien boo xamante ni du ñëw di may 1000 francs 2000 pour yóbbu la non danaan kaay ma jàppale la euh, la dernière fois bu ñuy gisante li ma mujjee wax mooy boo demee ñu jéem a créer liste boo xamante ni dañuy def formation leadership c'est la première fois ma dégg koo xamante ni day génn ci poosam di dimbali ndaw ñi di leen jox pour ñu def formation c'est la première fois léegi nag mi ngi moo sañoon nag ñu ñëpp ñu àndandoo topp ci ginnaawam wóolu ko dama mënut a nekk fii di wax wax ju kawe mais leer na ñu du ñu gisaat ku mel ni Habib Niang yàlla nag dalay tàcc te benn yoon la lay tàcc tàcc nañu nag ci Habib Niang nañ ko jéem a jàppale bu buñ toppee ci ginnaawam rek dinañ am li mu bëgg Habib nag euh, je vais vous dire sunu yaay yaa ngi nii sama mag ñaa ngi nii ak sama rakk yi ñoom ñëpp ñi ngi sa ñi ngi sa ginnaaw ah, sama yaay yi li ñu bëgg mooy ku leen dimbali ci li ñu jotut a am maanaam ay carnet de santéeg ak seen mbootaay yi ku leen dimbali ñun ñooy seeni doom bu ñu sañoon bu ñu amee loolu Euh, loolu dañ leen koy defal mais yàlla def na loolu nekk gul suñ poos kon bu ñu gisee koo xamante ni pare na pour def loolu te ñun ñoo ko waroon def te amuñu ko dañuy jug ànd ak moom. di sant ki nga xamante ne tey moo ñu dalal fii di sunu xarit di suñu sëriñ di sunu lépp di Cheikh Adama Niang. rafet di rafet lu taxawaayam ak engagement am ci wetu sunu lider Habib Niang di sunu leader di sunu xarit di nuyu délégation bi nga xamante ne moom la ministre aline Sarr envoyé ànd nañu ak suñu leader Habib Niang ndax ñun Thiès leader bi ñu doon wër leader bi ñu doon wër ci Thiès muy fit jom fu la fayda ngor dafa nekk ci gor si toog di Habib Niang te yaakaar naa ne moom waxam ñëpp xam nañ ne waxam bariwul jëfam moo bëri mais waxam bariwul moo tax ñun ñi ànd ak moom toujours daf naa ñu wàññi leen seen wax te ngeen di def lu bari euh, moom nag ci ligne bi ko président Macky Sall taalal ci la jëm du wax ak kenn du tontul kenn mais tey ñi ngi wax président ne ko suñu bàyyi woon tey képp ku ko ku dal ci kawam ñun dinañ ko tontul mais président santuñu loolu liñ ñu sant mooy dem leen sur le terrain ngeen liggéey te suñu président Habib Niang loolu la ñu sant na ñëpp ànd nekk benn liggéey pour jox président Macky Sall victoire écrasante au premier donc loolu la ci don sanni ñu ngi sante Serigne Cheikh Adama Niang mi dekk Ersan ma ngi nuyu délégation ministre Alioune sa ma ngi len di dalal jamm Mangi ngi nuyu jigenu Ersan yi go fii tey yàlla mi ma tiim xam na dama woor maa ngi ci koor gi mais Serigne Cheikh bëccëg fépp fu Cheikh Habib di dem Serigne Cheikh Aada mu ngi ci ginnaawam kon moo ma tey waral ma toog fii tey ba waxtu bi te dew ma ndogu ndax lan Cheikh Serigne Aada ak Habib ñaami ñoo ma ko waral moo tax di leen gërëm te di leen ne yàlla seen ànd yàgg te yàlla leen yàlla taxawu dénk nañ la suñu leader Serigne Cheikh Aada bu ma pare ci loolu

ci am carte d'identité na ko denc bu baax koo xam ne amagul carte d'identité léegi ñu commencé inscription yi nga wuti ko koo xam ne amagul kayit na nga ma laajte wala nga ñëw ci ma Habib ñaa laajte ko ci siège bi dinañ leen jàppale ba ngeen am kayit ngeen mën a dem vote ji ñu mën a jàpp le premier tour le 24 février premier tour ñu tey suñu carte d'identité yi Serigne Cheikh Aada ñu fal Macky Sall